bii nag moom maa ngi koy beral kenn ci ñun di soxna Faat Bintu Puy jàmbaari sëriñ Abdou Karim ji nga xam ne moom ndeysaan yaay la ci ñun di lépp ci ñun mbëggal ñu boppam boole ñu ci boppam bu ñu demee këram dañuy mel ni suñu kër lan nekk yaay nag li ma lay wax rek mën na la yaa ma gënal junni man ndax junni junni day jeex te ngor du jeex kon daal yaay puy yaa ma gënal junni comme na ma la ko waxoon ci sa saal ba rek junni day jeex te ngor ju jeex maanaam nag boo gisee ma beral la sama vidéo bii nag dañoo gëj a gise lool ba kor sëñ koro duggee ci ñu nag léegi tegantewul bët ñëw naa dindi ay yoon yoon mën maa fexe ba gis la bëgg naa nag nga dimbali ma ñu gisante ndax yitte woon naa lool ndax sàq ma jeex na de <laughs> sàq ma jeex na de puy heure bu ne ma saan gis tey suñ bët ma saan xonq bëri nga nga weexal ko puy ngaalo kon nag maa ngi lay maa ngi fii di la déglu rek non non boo ma woo ma ñëw soo yónnee ci man it daanaka daanaka jërëjëf sama xol dafa sedd ci yow ci mënumaa sori ci yow